bi monsieur Touré laa ko yéene daal. dama nekk fi. ah monsieur Touré laa ko yéene. non je suis présent. déggoon ni doom bu jigéen pertement la. bu amee jëkkër fàtte ñëpp. ku si nag nangu rek. <laughs> bismillah sëñ bi ñang waaw tey moom asma gan gi nekk gan gu am solo gan gu baax loolu daal di oyof ah, ma gis ko ci réseaux sociaux yi wa dégg neex yàlla di ko déglu nag di ko bàyyi xel bu baax a baax ma woo ko moom mu décroché ma yombal yombalal ma mbir bi yépp nag ma ne ko bu fekkee sax doo amee empêchement wala doo ñëw nga daal di ma koy wax mu ne ma Ndeye Fatou man lu ma wax rek bu neexee suñu borom dinaa ko def te loolu ñëw na kii mooy sëñ Jibril Niang la marabout des dëkk bi ah, ñëpp jox ko bopp moo tax ma daal di la fay teg fii ci nga xam ne mooy sur la chaîne leader nekk télé askan bi seen Jibril Niang maa ngi lay dalal bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalq sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam bokk yi safoo seen TV ñoo ngi leen di nuyu. Euh, di leen ziar ci weeru gàmm bu tedd bi ñu dugg. nga xam ne mooy weeru fa tabaarakallahu sayyidil awalin wal axirin ko nga xam ne bi yàlla di bind mbindee fi fa tabaarakallahu dakaa bind ngir Seydina Muhammad yàlla lim bind yëpp pour Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad rek la yàlla bind ngir boppam. dëgg la Seydi Malik sax wax na ko. wa maa xalaqa rahmaanu shay'an li nafsihi siwa seydil mahmudi wa huwa habibu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan toog naan ana min allahi waaye wal muminuuna min nii man maag yàlla waaye yéen fa tabarakallahu maag yéen la kon ñoo ngi leen ziyaar ci weer bu tedd boobu di nuyu fa tabarakallahu coach euh, émission bi moom wax dëgg yàlla mun fi ñàkk <laughs> yaa ko neexal euh, fa tabarakallahu nekk na émission boo xam ni lii rek moo taxoon ma bëgg teew ndax jàngale dafa laaj dialogue mm-hmm. toog sa kër def sa déclaration du am fa tabaarakallaahu réplique euh, li nga bëgg wax du leer ni mu war a leeree waaye ndax boobu wax lu ma neex la waaye ragal naa ni dooma seetaan may wax waxi dof <laughs> dooma seetaan may wax waxi dof dooma seetaan may wax waxi dof binta ba fa tabaarakallaahu ak doomu daara yi nga xam ne ñoo may dégg mm-hmm. waxtaan mi nag fa tabaarakallaahu mm-hmm. Euh, lépp ci xam-xam lañ koy teg. très bien très bien muy feem bu guddi jotee du noonu. Mm, waaw mm-hmm. feem yi nga xam ne moo nekk ci biir néegu sëy. Mm-hmm. léegi nag dañuy tànn seppi li nga xam ne moo dagan ak lu daganul. Mm-hmm. yaakaar naa ne ki nga xam ne mooy euh, Serigne Djibril Niang di ngeen ñu di ngeen ci gind bu baax baax a baax. léegi bi may njëkkee sama question bu njëkk mooy euh, dama bëgg a ndax li ñuy waxee ay nga baal ma rek ay nuisette ak ay ay ay sër yi ñuy def di ko di ko di ko di ko di ko bëgg bëggalee li nga xam ne moom mooy suñu borom kër yi. dama bëgg xam ndax loolu dafa bokk na ci li nga xam ne dagan na ak nan lañ ko war a defee ndax yaakaar naa ne ñun ñi nga xam ne ñoo jënd lu ñu neex rek la ñuy defee ci côté boobu noonu euh, fa tabaarakallaahu soxna nday Faatu gis nga jullit bi yàlla da koy nil programme alif lam mim zalikal kitab ba minal jinnati wa naas fa tabaarakallaahu ak téere yi nga xam ne moom la borom xam-xam yi bind ak xaddis yi nga xam ne seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo koy jàngale Euh, lépp loo xam ne dunduk doomu aadama la moo xam ca jàkka ja la moo xam ci biir néeg la moo xam bànneex la ci wàllu sëy fa tabaarakallaahu alquran ñëwee na ko ndax maa fara naa fi kitaab min seen alquran wàccul dara mm-hmm. kon boo ma laajee ba xam feem yi nga xam ne ci biir néeg alquran indi na ko dama lay njëkk indi ñaari aaya alquran wa hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna yàlla fa tabaarakallaahu moo wax ci suratul baqara mm-hmm. seen soxna yi seen mbàjj lañu yéen it seen ngeen fa tabaarakallaahu may laaj sa mbàjj est-ce que war nga am noo ko jëlee sàngoo ko wala nu la neex nga ko war a jëlee hmm. kenn ku ne booy sangu mën nga jël sa mbàjj sam tam tàmbale ci kaw jëm ci suuf wala nga tàmbale sàng say tànk jëm ci kaw. te muy dëgg. loolu mooy wane ni. <laughs> Ah. fa tabaarakallaahu sa soxna. waaw amul benn position bu aram ci yow moom. Ah. loolu leer na. Hmm. waaw hmm. su ma ñëwaatee fa tabaarakallaahu ci jàngale bi dana gën a leer. nisaakum xarsu lakum. faatu xarsukum ana shiftum yàlla moo ni jigéen ñi seen jabar yi seeni tool lañu. seen tool yi dem leen ci ñu leen neexee. Mhm. loolu dafa leer. waaye xaddis bi ah. nu la neex ngay bayee sa la neexee ngay bayee sa tool. Mhm. booy dugg sa biir tool. doo xool côté gos laay duggee doo xool côté droite laay duggee. Mhm. bu la neexee sax di bërëngu di dugg sa tool yaa moom sa tool. waaw mu ni bu amee bunt. waaye yaa doo jaar ci bunt bi nga bëgg tëb ñag bi nag. yaa moom sa tool bu la neexee def ci vingt bunt. mais boo bëggee tëb ñag bi nag xaaxaame dina la jàpp doo tëb. vingt buntu nga ciy def. Ah, fu la neex fu la neex duggee. may ca bon xam nga aaya alquran hadis moo koy firi. Mhm. waxi yàlla. Mhm. wax bu jugee ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo koy firi. laaj bi ma laaj ni dafa am ñu ko laajoon fa tabaarakallahu nu yaay ay waaw est-ce que xam nga sëy. kenn jàngalewu ko ku du Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam amul benn hadis buñ lay wax ci sëy. saxaaba lu mu ponkal ponkal lu mu rëy rëy rëy ni la yonent bi nee na ma de